salaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bi jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal sëriñ Moustapha Xaadimu Rasuul mu yàgg lool ñu ngi woote woon tey ci turu Benno Bokk Yaakaar yàlla mi dogal dogal na tey mën na wax ne taabal yi fi toog mboolem ñi nga xam ne ñoo fi représenté ay moo xam euh, réew mi ñu ngi nii toog. waa RDS ñu ngi nii toog euh, ñi nga xam ne tamit ñooy waa socialiste yi ñu ngi nii toog euh, mën na ma wax ne waa Kër Lat Dior euh, mu yore muy Ibrahima Ka ñu ngi toog kon mën na wax ne benn boo ko yaakaar lépp daje na ci table bi bu ñuy waxee APR it mën na wax ne ñu ngi nii toog ak soxna Fodouane mi ak mboolem jigéen ñi nga xam ne tamit ñu ngi ànd ci. jataay bi toog waaye bi am solo mooy ndaw yi parti nga xam ne tey ñu wax euh, li nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ndaw ñi nga xam ne am nañ pas-pas ci am gëm-gëm tey ñu ngi nii ànd ko ak ñun doog ma faral di leen ne dañoo toll ci jamono joo xam ne diw laa àndal wala diw laa wala diw mooy sama leader am solo benn leader la am muy leader bi nga xam ne mooy président Macky Sall kon ñu jëm 2024 ñu am ay liggéey yoo xam ne ci la département bi doon doxee mboolem li nga xam ne tamit ajaloo ci monde rural bi wala mu aju ci département bi bi nan ko war a doxalee doxalee nañ ko ah, rawatina yi mu jëm ci tubaab yi nga xam ne fa lañ parce que tey di wax liñ soxla mu jëm 2024 mën na wax ne ndaw ñi dañ ci am solo parce que boo xoolee li nga xam ne ñoom lañ jàkkaarloo ndaw ñi leen di ndaw ñi la ñuy jël di leen ci lu bare bare bare kon ñun it suñu ndaw ñi war nañ leen a gën a mën war nañ leen gën a mën a taxawal war nañ leen a gën a mën xel ci li nga xam ne moom lañ jëm ak li nga xam ne tamit wàllu liggéey la ay métier yoo xam ne nii ak ay euh, liggéey yoo xam ne nii ay nomination ndaw ñi danañ ko am incha allah rabbi loolu bokk suñu mission. département yi wala 46 ci nekk jëm def appel boobu wane na jot na ñun ñëpp gën a joxante loxo. war na jot na ñun ñëpp ñu ànd nekk benn waaye jot na ñun ñëpp ñu préparé deux mille vingt quatre wolof nag dafay faral di wax ne ab reer guddi lañ koy jëfandikoo waaye bëccëg lañ koy préparé kon toll ci bëccëg boobu muy mooy deux mille vingt waaye bëccëg lañ koy waajal kon toll nañ ci bëccëg boobu ñu fas yéene nag déclaré wax ne lii ñu jëm muy élection deux mille vingt quatre ñun ak ñun yaakaar loolu comme que ñoom am nañ gëm-gëm wax bu ne di wax ne troisième mandat guddi ak bëccëg ñu koy wax ñun coalition Benno Bokk Yaakaar war na loo mën a am gëm-gëm wax ne élection yii ñu jëm président Macky Sall mooy suñu candidat loolu ñu wax nag li may ci annoncé di ko waaf maa ñi nga xam ne ñoom lañ bokk pas-pas ak gëm-gëm mooy élection 2024 insha allahu rabbi euh, président Macky Sall mooy suñu candidat loolu nag bu koy wax dañ mu tege ci yoon waaye yoon bu waxee sept wax juróom wax plus euh, cinq plus cinq ah, muy dix ñu ne deux mandat yaakaar naa jël doxin ko ndax réew mi dafa am loi tënku ci ay loi loi yooyu nag lañ koy fas yéene bàyyee waaye nag xam na ne la ko joxoon président Macky Sall la ko joxoon président Wade moo ko joxaat président Macky kon gëm nañ ne loi boobu dara sensible kon la ci ëpp solo la kon ñun ñu teel a waajal suñu wax ne président Macky Sall mooy suñu candidat 2024. xam nga léegi a yëngu ah, a nit ñi dañuy faral di wax naan su ko bañalee wala amul wala du nekk wala toujours Sénégal yi di wax naan ñun Sénégal bañ na du ndoxu naa toujours nit ñi nag nag ngay xaajal wax ne lenn ci Sénégal même ni man mi nekk parti pouvoir élection lo législative ma gañe ko élection locale mu ëpp na ay maire élection présidentielle ma du ma wax mukk Sénégalais dama naan lenn ci Sénégal na ñu ñu ko am kon man li ma mënut a ndaw pourquoi opposant bi toujours dañuy wax ñun Sénégal yi ñu ko doon ñun Sénégal askan wi ñu ngi ci zone garab yi yan askan man mii di wax damaa bokkut askan wi est-ce que maa ngi ci seen garab kon li nga xam ne mooy bis bu ko nangalee waaye bis bu ko nangalu nga wax waaye gëm naa ne sept cinq ñaari cinq mu dix ndax sept ba ca la bokk loolu ci solo bu may propose toujours ñi nga xam ne ay original mën a xam lan mooy waa ñu koy jaar di leen ko wax naka jekk ñu daw nga fi ah ñu daw fi déglu. waaye ñuy daw di ñëw ñu heure amee ñuy daw rek am na ñuy daw di ñëw. président Macky Sall liggéeyam ci Sénégal kenn ku ne xam ne lu tax ñuy fal ab président pour muy liggéey yéen journaliste yi question la mu leen pose ngir mu liggéey ñëpp xam nañ ne président Macky Sall mi ngi liggéey réew kenn ko kon na fi problème yi fan la nekk mooy am na ñoo xam ne ay ministre la wala ay directeur la. wala ñu ko jege lan nan war a doxalee seen liggéey mu dégg leen jàpp nañ ña ca lan war a nekk nekk am ci ñoo xam ne mën naa am ña nga teg fii tànk teg feneen fa tànk waaye ki tey jël na nit jëlee ay engagement changé gouvernement bi taxawal premier ministre muy Amadou Ba ca bokk ci biir parti indi alliés yi dugal leen ci biir man gëm naa ne yu bari mi ngi daawoon ak waaye yu bari président jël na ndox bi ak parti li nga wax nag nag dañ ko dee am ay xalaat am expérience bu fekkoon ne lu ñuy jàng la jàngale la mën naa laa wax ne tey bibliothèque laa pour teg muy benn monument la kon tey ki tey sama jàngat li ma may ak sama xel li ma may loolu du ma ci sax président Macky Sall ndax dama jàpp ne ki xam ne dafa nekk ci armée euh, toujours di dox di wax bu gisee lu naroo ruur ak doon wala loo xam ne ma nga si tool bu war koo yàq daa war a jël ay responsabilités ba caaxaan kon man ak ñi ma ànd ak bokkoon ñoom xalaat ñun suñu xalaat foofu la nekk moo tax lii ñu def dañ dee waxtaan woote xalaat wax ko woo ñeneen ñi nga xam ne doonte mën noo bokk xalaat waaye gimi koogul ñu wax ne leen lii leen xalaat fekk seen dund ci waaye dana dem ci ñoom wax ak ñoom ban fekk si parce que jàpp ne ñoo xalaat